mooy au conseil bi nga xam ni alal ju bari dina ci dem ay milliards yu bari dina ci dem te amalul askan bi benn njariñ ñu jële ko fi te alal jooju ca waroon a dem ñu dugal ko ci njàng mi dugal ko ci paj mi dugal ko ci liggéey yi nga xam ni moo jëm ci xeex inondation géntaat naa gént bu gën a garaaw loolu da ngaa géntati dama géntati euh, ku ca géntoon na géntaat géntati na waaw déglu ma de mm-hmm. li ma gént nii incha allah te noonu lay demee. Hmm. saa njóogu hmm. l'impossible laa gént. ñaar ñoo xam ne wu kenn xalaatuloon dinañ ànd. Hmm. danañu ànd. muy kan ak kan. mooy jëmm ji nekk sa ginnaaw di Idriss Seck. ak kii mu jàkkaarloo Macky Sall danañ liggéey.